monsieur Dame Mbodj yow nag yaay secrétaire général bu Cusems authentique di coordonnateur bu Jean 20 tey yéen ngi ci grève démb yéen a ngi woon ci débrayage ndax tey ji mën nañoo ragal nii dañoo nar a dem ci semaine bu mouvementée ci école sénégalaise. waaw loolu moom am na. Euh, wax dëgg yàlla grève bi moom. Euh, depuis lu mat weer ñu euh, ngi nii ñoo ngi ci. semaine bii noonu nga ko waxee noonu la amee. dañ ni talaata bi lañ waroon a euh, def débrayage ci fukki waxtu bu jotee ci daara yu diggu doomu yeeg yu law loolu def nañ ko te kontaan ci ni jàngalekat yi toppee euh, li nga xam ni moom mooy euh, plan d'action tey nag ak suba ngay xam ne mooy ñaari fan yi ci toftal du nu fas te xànceeg moromam ñun jàngalekat yi loolu lañ wax ñu ko nag pour yàq waaye dañ koo def pour wow fësal jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci am njàng jàngale njàngale reeteet ko won sénégalais yi ni kat njàng mi yàqu na euh, dañ doon wax mi ngi yàqu waaye fi mu toll ni moom yàqu na ndaxte daanaka feebaru màggat la foolaal day metti kon nag mu euh, jot mu jot nag ñun sénégalais yi ñu jóg suñu bopp euh, jóg ci li nga xam ne moo ëpp importance ci réew mi fexe ay saafara ba lii dakk ndaxte wax dëgg yàlla bi mi dégg na day wax dafa bëgg mu mi ngi bëgg ëpp te jàngalekat yi lott nañ ci di ko wax donc loolu daal mooy situation bi Euh, situation bu garaaw la ne parce que réew bu ñu demee ba benn fan rek ñu mën koo toog ndongo ya du ñu jàng wala ñaari classe donc ci réew toog ñu jàng bu doon ci yenn réew yi ñu respecté seen euh, kon nguur ga day daal di woote nu mu gën a gaawee ñu waaye nguur koo xam ne ci tendee fan la nekk boobaa léegi kooku moom wax dëgg yàlla euh, ñun mënuñu lu def li ñu war a def parce que mënu ñoo xañ suñu àq ak suñu yelleef ba noppi ñu toog seetaan ndax bëgg jàmm. <laughs> ñun daal fi mu nii ñoo ci xeex bi ñoo koy wéyal ñu déglu na nguuru président Macky Sall ba xam moom. mi ngi euh, tey ji ci exigence yi li nga xam ne moom ngeen toppee ba tey nguur gi ndax mën nga ca ñëwaat euh, gannaaw ba ñu gisee ne nag nguur gi desul wala sax euh, arrêté wul di def ay négociation ak syndicat enseignants yi. waaw dama ne ñun nguur président Macky Sall waxtaan woon doon waxtaan ak moom jeex na ca 2014. li des mooy doxal. doxal googu la doxal ba coow am. moom bi ñëwee ci nguur gi moom président Macky fekk mun fekk ci coow lu métti ak président Ablaye Wade mi doon jiite réew mi mënuñu bu ngeen ma mayee diir ba sama gouvernement taxaw dinaa waxtaan ak yéen wut ay saafara ci daan lañ ñu may ko may ñu ko woon sax daal ca départ ba waaye peuple bi teg ñu pression ni ñu kii mi ngi doog a ñëw may leen ko lool ñu daal di koy may may ko ab diir ba mu defee lu mat ay juróom-benn weer ñu commencé waxtaan di waxtaan ci jafe-jafe njàng mi 2012 ba 2014 ñaari at bañ ci waxtaanee ñu déggoo 17 février 2014 ci lañ déggoo ak moom waaye nit ki nag foo waxtaanee ñaari ak tey wax dëgg yàlla ba déggoo am li si des mooy nga doxal ko waaye moom doxalu ko léegi nag euh, moom euh, loolee nga xam ne moom déggoo na ñun la ci ëpp moom la doxalu parce que poñe bari woon na lool waaye la poñe bari bari li ci ëpp doole moom doxalu ko benn bi mooy kayit yi yeexatal li ci amoon pour jàngalekat seen kayit yi mu war a jot muy firndeel seen i avancement ngi mel nag moom. loolu lañu waroon a jox te joxuñu ko boobaak léegi nag ñi koy kaas te defu ko moo tax boobu mooy poñ bi nga xam ne poñ la bu mag boo xam ne euh, naan Mariama Sarr mi ngi wëndeeroo di lambar lambari ci réew mi nee na day séddale ay këyit jàngalekat yi loo xam mos fay am mais ñun mooy na toog ci bureau bi signé ak ci jàngalekat yi jox ko muy këyit yi ñu leen nga xam ne ñoom ñoo ko ñoom waa ministère des finances wax ne mat na téeméeri milliards leen amel jàngalekat waaw bu ñuy fay nga xam ne ñoo liggéeyal ñuy ay entreprise yu liggéeyal nguur di tudde ko bor bi nga xam ne Sénégal amee ameel ay entreprise dette intérieure waaye tax duñ ci calculé wàll leen ameel jàngalekat yi ñee danoo tabax ay école ak i tali ak i hôpital waaye ñun danoo tabax yi bopp kon ñu ñoom ñoo yem rek bilan bi nag mooy ñoom mën nañoo wane ne hôpital lan tabax waaye ñu mën nañ ni ku fi tekki dara ci réew mi wala ngay liggéey lu a doon naanaam mënuñ cee teg suñu ñoo ñooyee xam-xam ba mu seen bopp di ko doxal ñun ñoo ko fi def kon nag ku ci nekk dañ la war a jox sa àq ak say ak sa moo tax ñun ñu jàpp ni jàngalekat yi boor bi ñu leen amee muy ay rappel yoo xam ne ay juróom-benni at juróom-ñetti at juróom fukki at yoo xam ne da ngaa waroon avancé avancé woo gouvernement bi téye eh, sa xaalis buñ la nan la jox sa xaalis parce que loolu eh, atte bor fay mais bor beeg buñ koy fay ñu bàyyi ñu koy xàppatee parce que gouvernement Sénégal buy fay jàngalekat yi seen rappel da koy xàppati ci digg bi digg digg bi xëccoo ko ak ñoom lu mu leen joxoon ci loxo ndeyjoor mu nangoo ci loxo càmmoñ di def ci at bi yëpp dee leen lu ngeen am danaa ko nangu kooku dafa war a dakk parce que nag réew ñun ñëpp ñoo ko bokk te jàngalekat dañoo bokk ci réew mi te mu leen a bot dafay impôt yu bëri pour que lam leen joxewoon ñun nanguwaat ko ndaxte nguuru président Macky Sall yéenewul dara jàngalekat yi moom bu sañoon jàngalekat yi dee loolu moo tax nag ñu ne jàmmaarloo ak ñoom. Mhm. beneen bi mooy aali kalat ji mooy bi nga xam ne moom moo ci ëpp doole mooy ni ñuy tuddee ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi ñu tuddee ko système de rémunération ci français te ñu botti ci jàngalekat yi jaay leen ci doole ku ci nekk salaire bi xam ne moom ngay jot méngoowul ak li nga xam moom la sartu réew mi wax ci ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi ndaxte dañ ñoo botti jël yeneen secteur gën leen a jox doole te ñëpp secteur bu mu mën a doon ñu bu dee ñu leen importance ci réew mi. parce que nguur boo yoree say liggéeykat da ngay tëdd njaaxaanaay borom kër sax bu yore ay soxnaam te tëddawul njaaxaanaay këram dana tas waxantuma laak euh, euh, nguur te nguur presque borom kër bu yaatu la rek ndaxte ñii dañ lay jàngaleel ñii di la atteel ñii di la fajal ñii di la yoral kaaraange ku ci nekk am àq ak yelleef ak yow am sàtt wu leen wu leen wu leen wu leen ñëpp nga jël jox leen lu bari ñii nga jox leen as tuut parce que bu ñu jëlee Euh, téeméer ci nit buy liggéeyal gi juróom-ñaar fukk ay jàngalekat lañ fanweer yi rek ñoo le ñoo nekk yeneen liggéeykat yi boo leen boolee waaye bu demee bay fay salaire salaire yi xaalis bi ñu war a fay ñuy liggéeyal nguur gi juróom-ñaar fukk yi la ñuy jox ñooñee nga xam ne ci lim fanweer lañ ñu jël fanweer yi ci xaalis jox ko nga xam ne ci ñoom ñooy juróom-ñaar fukk yi. Mhm. xoolal ma lii ci jaay doole ci ci ci bopp di compter ñu ne nag na dakk loolu président Macky mhm. mi ngoog euh, tey jii li nga fi lim lépp euh, ci dolé doléance yi nga xam ni wala exigence yi nga xam te ni euh, nguur gi moom ngeen ko teg ci ndoddam wax nga ni cent la amal jàngalekat yi situation bi Sénégal di dund ku ne xam na ko tey jii yàlla indi na fi benn mbas bu fi di tudd coronavirus nguur gi obligé génne lu toll benn milliard ak genn wàll ngir rek ñu mën a jële fii boobay feebar ndax situation bi ñuy dund ni yaakaar nga

Euh, président Macky Sall mënta làqatu ci mbas bi pour que li nga xam ne mooy responsabilité bi ba du ko def réew ya nga xam ne ma nga fay yàq sa téewul ma ngay dox kon nag ñun Sénégal lañu jàpp mooy mbas moomu bu ko bu fekkente ne àggale na ko foofu ba yaakaar ne yegg na foofu ñu ne mesure yam war a jël du li du li jàngalekat yi mën leen ci seen a jël mooy mu fexe ba kuréel nga xam ne ñu ngi suñu réew ñëpp d'accord nañ ni muy muy taw muy naaj Euh, euh, kuréel yooyu amaluñ njëriñ réew mi boo jëlee HCCT amul benn Sénégalais bu ko xam lu dul intellectuel amulul njëriñ réew mi amul lenn luñ mën a dut baaraam ne lii moo ko fi defal réew mi kon mën nañ koo tas ci jàmm xaalis bañ fay def ñu dugal ko ci ci ci ci réew mi mën nañoo dindi également ay dialogue des boobu yi nga xam ne ay yëfi naxaatay caaxaan nga xam ni ñoo ànd ak président Macky Sall même chose ak conseil bi jox Euh, innocent sax nga xam am benn benn ñokk seen i dëkk nu mu leen neexee ministre yu bëri ñu ngi nekk ay ministre toog seen kër amuñu bureau ne fayee ko ay salaire ministre man maa ko man dambu yaa ngi may dégg hmm. donc gouvernement bi ci boppam mën na koo tas moom président Macky Sall wàññi ko ba mu nekk ñaar fukki ministre parce que ministre yi ci bëri amuluñ njariñ réew mi ay salaire donc la ñuy yokkal ak ay oto yu bëri yu ñuy rangale seen biir kon nag moom président Macky Sall tamit euh, euh, caisse am bi mën na koo delloowaat askan parce que réew bu nekkee jafe-jafe kees noire bi dañ koy tëdd jox ko euh, euh, xeexee ko li nga xam ne moo moo moo dugg ci réew mi hmm. donc président Macky Sall lii ma fi la mën a jël te bu ko jëlee milliards yu bare bëri la ci li ma fi li yooyu su ko defee ñoo ñeen euh, defar teraanga yooyu nga xam ne moo moomuñu ko réew mee moom alal bi na ko foqartiwaat ci ñoom tas kuréel yi wàññi ministre yi daaneel euh, gouvernement euh, fal gouvernement bu ndaw ba noppi daal di jël moom caisse noire am bi mu dugalaat ko ci askan wi bu ko defee réew mi xam ni kii réew mi ñor na ko waaye taxaw naan ay jàngalekat yéen seenu grève lii na ngeen ko arrêté wala lu ngeen di laaj mënuma koo def parce que daa am mbas mu dugg ci réew man jàpp ma ne solution yi foofu lañ ko war a jóg. d' accord d' accord ci mbas moomu sax la ñuy desene di coronavirus bi tey ji am na ñu émettre euh, souhait bi maanaam euh, ñu euh, tëj lekkool yi di rek ay bës rek ngir ñu mën a épargner xale yi dem lekkool yow naka nga jàng jàngatee mbir moomu. waaw man de li ma jàpp mooy nee naa démb sunu mbokk G7 yi. ñi ngi def ay pexe ñoom ak gouvernement xooli pexe yi mën a def ba suspendre seen mot d'ordre daal di ci ginnaaw mbas bi te man boobu nag moom mooy njombel wax dëgg yàlla amul benn rapport parce que yow boo grévé kay mooy bu élèves yi jàng boobu kay boo bëggee dimbali boo bëggee dimbali eh, wax dëgg yàlla eh, eh, nit ñi pour que ñu bañ a dajaloo kay grève sax moom dimbali pour dajaloo bañ a am la parce que bu ko grève doo jàngale Eh, ku gré koñ buñ grévé gone yi duñ jàngi donc yooyu tàppale yooyu laa bëgg wax ne gouvernement bi ak G7 buñ ko fi ko beneen bi mooy que ni eh, wax dëgg yàlla ñaari cas moo fi am mais ñaari cas yëpp ay eh, nasaraan lañ yoo xam ne dañoo ñëw fii Sénégal parce que France lañ jóg France moom toppe nañu Mboro musiba mu ñu dal rek ñun Sénégal depuis 1960 ci France lañ jóg mais man li ma jàpp mooy. Euh, lii nga xam ne moom moo fi amagul mënagul a tax nga mën cee sukkandiku pour ne leen ci tekkul parce que wax dëgg yàlla mbir mi àggagul dayo boo xam ne ñu ngi ñaan nag mu yem mu ngi dal boo xam ne fii ci réew mi parce que nee naa la ngi fi ko jëlee indi ko hmm. ñaan bu mu dal benn sénégalais te ñim dal ci àdduna bi tam ñu ngi ñaan ñu wér hmm. te mu te yàlla jële ko fi ndaxte moom rek moo ko moo ko mën a jëlee keneen mu ko jël hmm. mais man li ma jàpp mooy mbir mi àggagul fu tax ñu war a tëj suñuy école wala ñuy tëj suñuy frontière di euh, di di di yàq suñu réew parce que ni bu ñu fàttali coow li coow li ci Sénégal depuis ñeenti fan coow li metti na métti koo xam ne réew yi nga xam ci ñoom la mbir mi dal seen kaw sax coowul noonu mm. parce que coow li daa am beneen jeexital bu muy am ci suñu économie réew mm. suñu économie réew ñu demee ba ñun Sénégalais yi ñu stigmatiser suñu bopp joxoñ baaraam suñu bopp dana tax ba kenn doot fi nangoo ñëw Euh, ñëpp ragal comme la daloon Guinée ci Ebola. Mhm. yooyu yëpp bu amee danañ yàqal suñu bopp yàq boo xam ne daañu ko rëcc bu ñu bu ñu bu ñu bëgg lu neex euh, ay français yeneen réew yi ba def loolu parce que ñoom ñuy teg pression naan lu tax Afrique feebar bi yokku fa mais ñoom lu tax ba Ebola bi amee ci Afrique ñoom waxuñu lu tax Ebola bi demul euh, Europe bu ñu nan ñu respecté. Mhm. donc ñun li ñu jàpp mooy Europe ñoom ñoo am problème. d'accord comme ñun Afrique ni ñu amee problème ci Ebola. Mhm. mais mooy bi aujourd'hui coronavirus euh, bii ñu ngi ñaan mbas mi nga xam dugg na ci suñu jóge fi waaye nag mbir mi tollagul foo xam ne war nañoo euh, euh, tëj suñuy école di gën a yokk coow li ba nga xam ne àdduna bépp dañu commencé daw Sénégal mhm. économie Sénégal nërmeelu kooku baaxul dama ne man position boobu d'accord ma ci dama d'accord mooy ndañ ñaan yàlla mu bañ a jéggi dayoo amiin amiin waaw bu ko defee. Mhm. ñu continuer jàng sunum jàng bu ñu demee nag ba vraiment bi toog waxtaan mais li ma jàpp mooy àggagul fu tax. ñu war a tëj suñu école. voilà ba àdduna di ragal a ñëw Sénégal ak di tiit ci ñëw Sénégal di nërmeelal suñu économie. Mhm. di nërmeelal suñu réew man d'accord ma ci. d'accord d'accord euh, monsieur Dia Mbodj ñu ngi lay jaajëfal bu baax may fàttali ne yow yaay secrétaire général bu si authentique également yaay diriger wala yaay coordonné sax G20 euh, donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci sa teewlu.